Pikine mais Tonnerre mi ngi bàyyeekoo ca yëmbal Tonnerre moo ñu wan kanam dugg na parcelle duggati duggati ñëw na jàkkaarloog benn xale bu nekk parcelle nekk ci yoon ñoom ñaar ku tànk ku nekk tànk nday beneen dër bi waaw waaw dër bi la dër bi la daam seen cukki cukki dóor def déplacement énervé ko parce que poids lourd la buy jóg day day day màmm waaw Tonnerre taxaw ci ay tànkam suul tànkam di ko déglu l'expérience face à la jeunesse arbitre baa ngi ruumal arbitre ëffal na nee na jegante leen dóorante leen bi ku fi dugg danga koy def daam seen mi ngi dox ci kaw kawam sa tànk ci kanam yaa ngi saxalaatee daam seen di saxalaate tànk bi tànk day joor tonnerre gis nga loxo yi xoolal mi ngi mel ni kuy jàpp jaan Tonnerre mi ngi mel ni kuy làmbatu mi ngi léewtoo poids lourd dañ koy déplacé Dame Sène latéralement waaw noonu la dem gauche dem droite yëkkati ko poids lourd la Tonnerre expérience lay bëree cokkaas na ko da kay énervé dóor na ci loxo yi Dame Sène à distance lay léewtoowee tànk day joor la jiital def na déplacement ñu ngay dem ci saaku yi Tonnerre nga koy déglu. Tonnerre da nga koy déglu Tonnerre taalal na ñaari loxo yi mel ni kuy bañ dóor ñëw mag laa gone de daam seen dóor cok daw ar bi day wax ak ñoom al avertissement verbal benn yoon Tonnerre aj na garde yi dóor yi lay bañ waaw il faut mu baare dóor yi il faut mu yëkkati garde bi Dame Sène à gauche Tonnerre à droite Tonnerre moo gën a gàtt ëpp tuuti mais yaram bi booy xool ci gàttaay bi moo tax Dame sànni na mais demul Dame Dame à gauche Dame est-ce que dina daaj ci paquet Tonnerre nee na ko doo daaj dara temps yi man maay Tonnerre temps yi day taw ak dënn yi gëm gëm bërërëm gëm oh Dame ak Tonnerre Tonnerre mbéb na daf ko xuuxal xuuxal na ko léegi daam dafa bëgg a dóor mais day sóoraale Tonnerre jàpp rek la bëgg Tonnerre dafa mel ni moom mooy xaar daam seen waaw mooy gone du daam seen fecc du daam seen fecckat de kooku mënul bëre ñemewul bëre Tonnerre daam daam a ngi jéem a avancé wàcc na wàcc na ba tolloog moom Tonnerre sànni na benn téere Tonnerre sànni na benn gàllaaj wala du moom Dame Sène a ngi déplacé wu arrière na dellu si na waat ba ci géew bi Tonnerre a ngi ne tekk di nga déglu da ngay xaar non lii moom moom la ñëpp doon wax waaw arbitre day àtte joxaat leen avertissement verbal. Tonnerre bëre woo loolu wax premier avertissement arbitre sifflé na waat. Dame Sène a ngi déplacé wu latéralement à gauche Papa wu ñëw na yaaram Gueye ñëw na waa Parcelles ñëw nañ Dame Dame la pression Petit Lo daan na léegi ñëw bokk seen Parcelles Dame Sène a ngi avancé Dame Sène a ngi avancé Dame ngay dox Dame a ngi direegu Tonnerre a ngi arrière Dame a ngi direegu Tonnerre a ngi arrière mais est xam ngeen ne dafa leel leel bu garaaw la leel ci kanam <laughs> ñoo ngi jéggalu nag lu ñu gis sax la ñuy wax daama ngi waaj a dóor Tonnerre taalal na ñaar loxo yi Tonnerre aj na garde bi ma ngay sóoraale door bi door bi lay bañ daam dóor na ci loxo bi daam daam daam Tonnerre laa bëgg a ne niib jàpp Tonnerre laa bëgg a sàcc jàpp Tonnerre ak daam Tonnerre da ngi leen tekk di nga déglu daam wàcc na Tonnerre yootu na daa yootu mais dóorul dafa yootu daam wàcc na tolloon na moom daam tiim ko daam tiim ko utiliser sa joolaay daa jàppante nañu Tonnerre am na lu mu bëggoon Tonnerre am na lu mu bëggoon oo yaay wooy sama bujje léegi mu jeex épreuve de force épreuve de force wéyale daam wéyale na ko tonnerre daam jàpp na daam jéem na jaxabal tonnerre génne na ko eh daam dóor na ko jàppante nañu ñoom ñaar daam ak tonnerre daam ak tonnerre wàcc nañu ñoom ñaar. da ngay rokkosante tonnerre da ngay rokkos daam dóor na daam dóor na daam mooy dul say tànk tonnerre ci suuf la jëm daam ngay door ay uppercut épreuve de force goneeg ndaw goneeg mag goneeg mag. rokos na ñaari rokos ay daam daam ak baalu la dara daam tonnerre baalu la dara jàppante bi est-ce arrangé na la tonnerre rokos na ngan di rokos kañ la ilaha illa comme ku yor kuur daam a ngi baaje ko baaje ko baaje ko ab ponkal dañ koy baaje bu ko bàyyi mu liggéey daam daam jël na tànk o oh, mënu ci dara dafa daaju Tonnerre daanaan la Tonnerre daanaan la am na luñ ma waxoon ci combat bi de mais duma ko wax Tonnerre ak Dame aywaay ah coach coach a ngi taxaw di xool coach a ngi taxaw di xool kot coach Lato jàppante bi yàgg na Dame Sène wane na ne tamit physiquement a ah, Dame tànk bi mënoo ko waaye waaye yóbbu na ko rëpp nañu ñoom ñaar Dame jóg na dóor Dame a ngi dóor. Tonnerre génn na Tonnerre génn na jàppante waat daam bul nangu loolu daama ngay door waaw eh eh eh Tonnerre def na def na signalement Tonnerre signalé na Tonnerre signalé na na ay waay door ya ñëwati na ay door yi door yi dóor yi daam seen daam seen loolu mooy sa avantage Tonnerre lu muy expliqué ma ngay fomp ma ngay fomp ma ngay sëlmu nee na lan la lu xew ma ngay dem ardo ma ngay direeku ma ngay njaab ma ngay njaab ak doole ju bëri ak leel bi xoolal leel bi jëla ma leel bi dafa leel ba yàqu fa leel ba yàqu xam-xam la xam-xamu bëre la moo tax mu leel Tonnerre ngoog arbitre sifflé na waat Tonnerre dem na ardo ba ñëw ña ngay léewtoo waat Dame Sène mi ngi defaat ay déplacement loolu la ko coach bi sant defal ay déplacement di dóor di génn looloy combat bi pour yow Tonnerre taxaw rek suul say tànk yaa ko mag jiitu ko ci làmb waaw dóor yi baaxul dóor yi baaxul bàcc yi baaxul Dame Sène a ngi di reekuwaat ma ngay yóotu Tonnerre aj na garde gi Tonnerre a ngi arrière reculé ab ponkal buy reculé moom loolu baaxul di xoolal Tonnerre mi ngi koy cokkaas ne ko kaay dóoraat Dame ngi wàcc di jóg Dame bul naagu ay boy Dame bul naagu Dame a ngay def déplacement Dame mi ngi dem Dame a dem daam daam mi ngi cokkaas dooragul mu dal daam seen à gauche jàmbaar wrestling la jógee Parcelles Assainies Tonnerre Pikine Mbooloo l'expérience face à la jeunesse daam sànni na dalul eh eh eh Tonnerre da ngay jéem a padd door mu daanu eh réer na réer na daama ngay accéléré daama ngay accéléré bëreel ak xel Tonnerre da ngay génn daw na génn na wala may ma ma fomp ma ngay wax ak coach bi ma ngay wax ak Baba Diallo Baba Diallo yoonam newu ci dalay nax de dalay nax de arbitre sifflé na joxaat na ko avertissement da ngaa génn yëfi mag lay def de day def yëfi mag de moytul mu def la yëfi mag de di la nax daam seen ak tonnerre daam daal gina ñaari paquet des na beneen paquet bu ñettee mbaa dina baax daama ngay dem daam demal ak sa xel Tonnerre mën na bëreeg yow ak xel mën na laa nax foofu naagu loola ba nga naagu na ñam nga ko defe na gisatul ah yëfi mag lay def daam daama ngay direeku Tonnerre a ngi jéem a dem toneer moytul dóor yi moytul leel bi sànni na loxo yi daa cëkk moytul leel bi. waaw leelu xam-xam kenn du ci dóor leel moom da am xam-xam eh dóor na ko jàpp na ko wooy jàpp na ko nag léegi nag léegi fii nekk mën naa sotti tone da ngay rokos tone da ngay dóor ay kuur ci suuf daama ngay koy baaje mi ngi koy baaje daam ak tonnerre attention daam loxo joor bi jàpp na mais daama ngi bëri ah way daam daanaan la de tonnerre mi ngi résister tonnerre mi ngi résister face à la jeunesse ndeysaan attention wéyele da ko bëggoon wër da ngaa bëgg a wër bu ko wëree mu jeex Tonnerre jàpp na daa na ko tël ko léegi mais tël bi demul tànk bi moom boo ko tëlee du daa am Tonnerre a ngi doo jàppal nga bëre Tonnerre fii dafa war a bëre Tonnerre fii expérience dafa war a feeñ waaw fii expérience dafa war a feeñ waaw Tonnerre ña ngay mbapat moog daam seen da attention Tonnerre wéyale na ko rëpp nañu ñoom ñaar wàcc nañu jógaat nañu ndeysaan ku nekk ngi tël sa morom tël tëlaat ña ngay tël tëlaat ña ngay tëlante yow ña ngay tëlante ndaw ña ngay tëlante daam seen ñam nañ ci suuf Tonnerre moo ñam léegi daam seen sikki ay combat bi neex na Fallou Ndiaye seen ngay rokos ci leel bi ay waay waay waay waay wéyale na ko waay laay laay laa dëpp ak dippi ay waay na ko bootu na da kaa bëggoon bootu oh, oh oh oh oh je suis content je suis content kontaan mais Jamaye Gueye kontaan nga. non combat bu neex. combat bu rek mooy danse si moom ci combat bi warul jàppanteeg tonnerre di déglu ndax mbër mu mag nag boo jàppee moom di déglu ku nekk di utiliser sa xel mën na laa ndax ndax moo la. ci lamb tonnerre tamit mi ngi bëri. non mu ngi def lu rëy. tonnerre ma wax naa leen dafa ñëwaat ci lamb. bàyyi koog yàlla de. wax naa leen tonnerre du magam kenn xelam dafa ñëwaat ci lamb am na ay confiance ci lamb daan na ñoo xam ne leen fëggutoon na leen daan moo tax na gars yi def attention. ko gars yi def attention le grand promoteur ndeysaan mooy jaatu promoteur yi gars yi bëre nañ bëre bu rëy ay Fallou Ndiaye tëgg combat bu neex Tonnerre waxul benn xale bàyyi naa la ak yàlla man de fooguma woon li wóor na sëñ bi man fooguma woon li pour man day jeex bu yàgg cinq minutes mu jeex Tonnerre qui résiste toujours daam seen ma xalaat daam yaari paquet nga daaj de te deuxième bi jeexagul woon daam day jaat nga paquet yi de daam bi saf de daam bi yombul de endurance say feeñ arbitre nee na combat bi jeex na premier round bi jeex na bëre ngeen lu arbitre sifflé waat sifflé waat ñu ngi leewtoo dem nañu premier round ba mu jeex dugg nañ ci deuxième round bi Dame Sène ak Tonnerre combat bu doy waar ñu ngi léewtoo ndànk-ndànk cokki cokki dañ koy cokki cokki ndànk ñu ngay xoolante waat ñoom ñaar deuxième round daam daam am nga problème. arbitre baa ngi ruumal ofal ofal Tonnerre a ngi arrière bopp lay moom de daam seen wàcc na ba tolloog moom daam seen daam seen est-ce que ñeme na xeex bi carrément carrément carrément carrément. ma ngay sexal tàng bi de daam sànni na daam si air bi lay sànni daam loolu du xeex de e e e loolu bu daloon fële Grand Yoff nga jëm Tonnerre daf ko bëgg a jàpp Tonnerre gis nga day màmm day màmm daam sànq loolu maa ngi ko doon wax Tonnerre buy di ñëw day jóg boo sóoraale woon ci suuf parce que poids lourd la boo ko foree day oyof daam a ngi sànni Tonnerre ci xeex bi la koy woo mais gëmu ko daam def na déplacement daam sànq Tonnerre bi mu jógee ñaari yoon gisoo ko jóg na ñaari yoon xooloo tànk yi ci kaw rek ngay xool ci leel bi rek ngay xool leelu Tonnerre bi rek ngay xool bàyyi leel bi daama ngi dem Tonnerre arrière na Tonnerre a ngi esquivé bopp lay bëree moom xel xel lay bëree bu ko yow si kanam gi la bëgg a dóor Tonnerre day wàcce garde bi daam mën na bàyyi lool xel bu baax a baax di ko jéem a pénétrer door na jàppante nañu Tonnerre lii la bëggoon daam may nga ko ko alors léegi bëriwaat léegi mbapat leen nañ ko mbapat jàppante nañu waat def leen lu xees def leen lu rafet ñëpp kontaan. combat bi neex na c'est le premier grand combat dina Tonnerre ak Dame seen njëkk a bëri Alioune Seye junior ak Mor Kang Kang combat boobu moo njëkk a taxaw moo tax mu nekk grand combat attention tooj na ko eh laay laay lan laa tànk yee gàtt def ko tooj bëggoon ko roof ca mu daanu mais daam daf ko effacé da sut daf ko ëñ peese ko tël ko dóor dóor ñamante dóorante si kanamu arbitre yi Tonnerre génn na saaku yi Tonnerre amaat na beneen avertissement walla bii doo avertissement arbitre day am avertissement muy trois muy ñett mu des ñaar muy cinq Tonnerre jël na gars yi bañ nañu lii moo tax règlement bi dañ ko war a xoolaat mbër jàpp la ba génn la ñu ngi ñu ngi leew toowaat arbitre sifflé na Tonnerre ñetti avertissement Tonnerre Tonnerre Tonnerre a ngi résisté xale bu ko ci jël nag da nga xool li ngay jël lan la Tonnerre jeexalul de barkib sëñ bi barkib sëñ bi ki jeexalul dara leel bi rek a ma ci jaaxal leel bi day gën a yokku daam daam del dóor daam dóoral def déplacement a ah, foog tonnerre cokkaas la nga door a xeex mais boo xeexee da ngay jàppante normalement waroo jàppante ay déplacement ngay def gauche droite dem dem gauche dem droite di sànni waaw mu jóg waaw nga nga sàcc ko jeex na man li may wax daa yomb torop Tonnerre a ngay tibb suuf si rek tël na suuf si ñaari yoon di jaay ne daa mën a daa ma ngay topp tam toppa topp bii day ànd ak dóor ah dara du dal Tonnerre ngay esquiver Tonnerre ngay moytu day daam day màmm boo ko defee noonu day jóg boo ko defee day ñëw gis nga sànni na na te bu sànnee dootul am garde daama ngi sànni Tonnerre door na laaw goos Tonnerre laaw goos téere yaa ngi naaw Tonnerre bu dóoree rek téere yi day naaw jàppante naa moom xoolal amaat na ko amaat na ko daam nangu na ko daa baal ak moom jàppanteeg moom daam nangu daam bañul daam daa nangu daam jëlal daam nangu tegante nañu bopp ndengeeñ jàppante nañu belle prise belle prise daam jàpp na ngemb Tonnerre loxo yi lu muy gàtt gàtt jàpp na ngemb ràcc na benn tànk bi ci ginnaaw Tonnerre rasu na daam rasu ku nekk rasu na daama ko sut nag daam xëy na bu ko ëññee mais Tonnerre bu mu fi mu teg bopp bi daam du bëre daam du bëre daam teg na bopp bi kii putu wala boog Tonnerre teg na boobi ah toog na attention mooy yéen mooy yéen mooy yéen roof na tànk daam ak Tonnerre roof roppi ay waay roof roppi roof roppi laa gis ndaw gis nga roof roppi bi laay lay la laa ñii ñoo mën roof roppi waa pep pep pep da ngaa roof daam roppi ko laay defe naa woon roof roppi jeex na ay waay roof roppi feeñ na tey waay Dame ak Tonnerre jàppante nañu épreuve de force endurance Tonnerre comme ku naan comme ku naan attention tegal ci ah la ilaha illallah la ilaha illallah ndaw lu rëy roofaat roppi bi yoon Dame moo roof Tonnerre roppi waaye pep pep pep yaakaaroon naa ne roof roppi jeex na fi da nga ne ñoom ña attention oh daanu nga daanu nga Tonnerre daanu nga sa bopp. Tonnerre daan na boppam. moo daan boppam. moo daan li mu def après amul woon appui pour jógaat. poids lourd la. poids lourd bi diisaay bi ko sonal bi mu wàccee pour mu jógaat automatisme bi gaawul waaw.